ñu ngi lay nuyu di ziar waa Sénégal yëpp. feeru edd bi nag moom dañoo xam ne turki dañuy dund ak ñoom te waxtu bu ne dañ ñu daan jàppale moo tax bi luy xewee it ñun lu ñu mën mooy fexe ba jàppale leen te yàlla rek tax ci lañ dajale na léegi nañ def appel donc fépp fu Sénégal a nekk ci turki yëpp ñu génne ko def ko euh, ñi nga xam ne aussi tamit yàqule mooy étudiants yi. ñoom it ñu jox leen ci ku nekk 1000 lira jàppale leen leen ko muy 4000 lira ci ñoom euh, li ci des nag ñu yóbbu ko ci mairie bi biñ fa demee nii sax si lañ fa fekkanteeg mairie Fatick muy fi ñu dëkkee waaw mairie bi maire bi lañ doon waxal noonu moom lañ jox bagage yi aussi tamit mu rafetlu ko kontaan lool waaw ci turu Sénégal yëpp nag lañ ko joxee mu kontaan ci lool. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu suñu mbokk sénégalais yëpp di leen jaajëfalaat ci geste bu rafet bi geste bu noble bii ñu def bi ñu yëgee li nga xam mooy xew ci Turquie muy tremblement de terre bi ñu boolee suñu doolee jàppalee ko suñu mbokk turk yi jëndal leen ay blouson ay mbaxana ay laafa ndax dañoo nekk ci période sedd mu métti loolu ci ñoon affaire bi métti trop mais di leen jaajëfalaat ci acte bi lii mooy woon eh, ay sunu mbokk jullit lan te dëkk moom boo fa nekkee sa sutura ne fa bu namee jafe-jafe danga cee war a feeñal sa yéene jëf ji ngeen def rafet na ñu leen ñaanal ci barke Seydina Mohamed suñu borom yàggal taxawaay wéral cër yi musul ñu muccal ci li nga xam moo fi am ba suñu borom dogal mu yem fi te bañ fee amati ci barke Seydina Mohamed jaa ngeen jëf li rafet na trop yàlla yàlla fay yiw waaw lii de bërkaat démb ba léegi bi mu fi xewee defe naa ne lépp luñ mën pour sensibiliser sénégalais yi wala ñu dajale leen xool nan la ñuy def ba nekk ci jàmm rek ñu ngi ci loolu moo waral boobu ba léegi it nag ñu ngi nekk ak sénégalais yi di coordonné lu mën di ci waxtaan ak ñoom ndax séisme boo xam ne sept virgule cinq secondes la ñu wax ne moom la def